jàng leen alquran ànd ak man wala nañ àndandoo jàng alquran njàngin mu wér mu mucc ayib fii ci baytul quran di kërug alquran di daara ji tey nag e, ba tey génn gun ci araf yi li ñu tudda liifantu muy njàngum ijji jëloon nañ ci ci leçon bu njëkk bi ak darsul awwal jëloon nañ ci defoon nañ ko Euh, jëloon nañ ci ñetteelu xaaj bi muy ñetteelu bind bi waaye ba léegi ñu ngi ci première lesson bi waaye jëloon nañ ci ñetti bind tey nag ñu ngi ci ñeenteelu bind bi ay aywa bu ko defee araf yii lañ war a jàng tey suñu jubluwaay tey mooy araf yi te moo ci mujj ci xuruful hijaa i mufradatan araf yi nga xam ne dañ koy benn bennal muy laam miim nuun waaw haa hamza yaa laam miim nuun waaw haa waaw haa hamza yaa yaa nag am na ay mbindin yu wuute ngeen bàyyi ci xel waaw am na bu dee surtout bu dee ci kaamil bi yu ci bëri du am ñaari tomb yi bu amul tomb ci suuf yaa su amee tomb yaa am na beneen façon yaa boo xam ne itam euh, da ngeen ko gis kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax incha allah aywa kon déglu leen bu baax euh, niñ koy jànge su ma noppee ñu demaat ci bi ci topp aywa déglu leen bu baax donga yi góor yi ak donga yi jigéen ñi xool leen ma xool araf yi itam te déglu bu baax laam miim nuun waaw haa hamza yaa yaa dégluwaat leen laam miim nuun waaw haa hamza yaa yaa laam miim nuun waaw ha hamza yaa ya aywa kon mi ngi noonu fii nag gis nga ko niñ ko waxe woon ci bindi yi weesu araf bi dafay am nu muy mel su nekkee ci tàmbaliwaayu baat bi ci commencement bi ak bu nekkee ci diggu baat bi ak bu nekkee ci mujjantalu baat bi léegi-léegi niñ koy bindee du bokk waaye même tur wi niñ koy jànge ñoo koy bokk kon gis nga ko laam xoolal bu baax nga bàyyi ci xel mbindi ni mooy wuute waaye niñ ko doon waxee rek benn la laam miim nuun waaw ha hamza yaa bu dee ci digg bi ba tey laam miim nuun waaw haa hamza yaa bu dee ñetteelu ligne bi nga xam ni mooy mujjantalu baat bi laam miim nuun waaw haa hamza yaa gis nga ko boo xoolee danga gis mbind mi ñoo wuute waaye niñ ko waxee woon ci ligne bu njëkk beeg bi ci digg bi bi ci mujj bi trois lignes yi yëpp ñoo bokk nuñ koy jànge mais boo xoolee mbind yi day wuute gis nga ko mën ngaa wax laam laam laam miim miim miim nuun nuun nuun waaw waaw waaw hamza hamza hamza yaa yaa yaa mu ngoog kon wax leen ma dégg aywa wax leen ma dégg mhm. Mhm. Mhm. aywa macha allah aywa fii nag yéenay wax ma dégg waaw fii moom yéenay wax ma dégg wax leen ma dégg aywa mhm, mhm. mhm. aywa kan mooy wax ci ci ci góor ñi kan moo yëkkati loxoom Ahmed Loum bàyyi xel ijji moom bokk tëkk ni ñuy jànge alquran pour mokkal pour tari ijji moom ab tareem mooy xàmmee mooy xàmmee soo ko mënoon a tari te doo ko xool te bu ñu la ko wanee doo ko xam li ñu tudde njàngum gumba loolu baaxut kon da koy xàmmee araf bu ne da ngay xool ni mu mel pour nga xàmmee ko aywa kan mooy wax ci góor ñi Ahmed Loum Ahmed Loum aywa bismillah waxal ma dégg mm mhm. mhm. macha allah gis nga ci commencement bi Hamza nga ñëwaat ñu jëlaat alif jëlaat Hamza bi teg ko ci kaw suñ jëlee alif fa nga jàngoon alif buñ jëlee Hamza teg ci kaw bu boobaa hamza nga koy jànge doo ko jànge alif hamza gis nga fee hamza bi rek lañ teg noonu amul alif waaye fii ñu jël alif bi jël hamza bi teg ci kaw ba tey hamza alif buum la jaaxal léeg-léeg ñu jël waawit dana ñëw ci kanam léeg-léeg ñu jël waaw jël hamza teg ci kawam bu boobaa yitam hamza rek nga koy jànge wala ñu jël yaa ñu jël hamza teg ko ci kawam bu boobaa itam hamza rek nga koy jànge aywa continuel waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. macha allah macha allah Ahmed kan ci jigéen ñi kan mooy jàng ci jigéen ñi soxna Penda Si penda si aywa bismillah aywa mhm mhm macha allah macha allah kon baax na yéen ñi ci des ngeen déglu baax ni Ahmed Loum waxe ak ni soxna Penda si waxee noonu rek la aywa. mm ñu jàll aywa kon <coughs> euh, fii na kenn ku nekk jël kayam ak bigam dañ koy faral di waxe rek walla bu fekkee àlliwa ak xalima ak daa moo gën a jàppandi ci yow wala bu fekkee kere ak ardoise moo gën a jàppandi ci yow nga bindal ma araf gis nga laam miim nuun waaw gis nga diggante ñaari tomb yi dangay jël laam nga bind ko foofu niñ ko bind nii mbind mu rafet bindaat ko fii bindaat ko fii nga xam ne danga ko bind ñetti yoon nga jël miim nga def ko noonu nga jël nuun nga def ko noonu nga jël waaw nga def ko noonu aywa nga jàll ci haa moom nga def ko noonu ci diggante ñaari tomb yi nga jël hamza moom it nga def ko noonu ci diggante ñaari tomb yi nga jël yaa moom it nga def ko noonu bu ko defee dangay boole mën a jàng ak boole mën a bind yaa ngi liifantu waaye yaa ngi jàngaale nu ñuy binde soo demee ci alquran bi tamit ba commencé di mokkal itam yaa ngi boole di mokkal di jàng alquran waaye ba tey di jàngaale bind bu ko defee dangay boole mën a jàng boole mën a bind mu nekk loo xam ni lu sakkan lay doon lu ama am solo kon macha allah. lii moo nekkoon araf yi mujj ci euh, première lesson bi muy ad darsul awal xuruful hijaa'i mufradatan araf yi nga xam ne benn par benn lay nekk alif ba taa léegi nag da nga demaat ci euh, beneen lesson bi ci topp nga xam ne léegi da ngay boole par ñaari araf di boole par ñetti araf bu ko defee nag yaa ngi commencé mën a boole ay araf mu nekk baat incha allah kon ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla tawfiq yàlla defal leen yombal ak jàppandal te yàlla bindal ñu ci tuyaaba e, tabaarakallah fii ci seen daara ji ñuy tuddee baytul quraan ci seen programme bi ñuy tuddee rattilil quraana maayi ci seen ñeenteelu bind bi nekkoon ci dërsul awwal ci liifantu bi di ijji e, tabaarakallah kenn àndoon ci ak seen mbokkum daara Serigne Mor subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk